bay Dijo den bay juku tatu bao Dijo dukui tabun dijuku jao Dila nyubo indo ijuku tuku tuyom Dila nyubo indo ijuku tanasan mbokki internet yi asalaamaaleykum tay ñu ngi si quartier Lindiane fas and ak yeen ci kër Tambal TV fekk ci benen daanan bu mag nga xamne dañ ko ragné ci walu musique local Sénégal wala même africaine mu ngi tudd Siste Hortense Diédhiou kërëm lañ nekk ni Siste asalaamualeykum. alaykum salaam. ok ma ngi leen di nuyu ah, sen tour ak sen sant di rafetolu sen taxaway bu baax baax. di leen ne merci li ngeen ñëwee tey pour euh, xam man fi ma dëkk ngeen mën a ma laaj leneen tamit li wàllu ci wàllu moo musique. exactement donc si tey ñu ngi fii ndaanaan nga woykat bu mag nga te na dañuy xam ni fan nga toll ci wàllu musique. ah maa ngi ci góorgóorlu bu baax ci wàllu musique di fas jéem a fas jom ci wàllu musique. donc euh, mun nga ñu wax tuuti lan moo la dugal ci musique. bon musique dama ko yàgg a bëgg lool te dafa ma yàgg a topp bu may xale lu olof njaay di naan euh, yoon du fàtte euh, ndox du fàtte yoonam loolu moo tax euh, ma dugg ci musique parce dama ko doon. da nga ko doon si kan. bon sama yaay tamit de dafa doon loo xamante ne mooy dee woy ay woy cosaan comme ni ñuy def cosaan moom woykat la ci côté googu nag. té dafa nek lo xamantene tamit euh dama bëgg trop musique dama bëgg trop musique motax euh, euh mu upp ma doole ma duggu ci mom donc suma déggé bu baax da nga don sa yaay wala bu mu don def ay musique tradition da nga don ak wala da nga don suivre. non non man dama don gis muy def nonu bu dara amé ni xew amé ni dekk ba mom moy woy ay woy cosaan dekk ba comme ni ñi ne ay affaire yi dejj ak yoyu mom moy taxaw di woy motax xëy na peut-être euh, doon la moo tax yàlla def ma tamit man ma donn ko ci wàllu euh, musique euh, tubaab. mais yow toppaloo cosaan yow dafa mel ni musique moderne. bon man bu ñëw rek damay dóor. waa traditionnel day ñëw traditionnel foofu la gën a amee doole këbo bi benn rek la dóoragum waaye man daal bu ñëwee rek bu ñëw rek ni ma ko sentiree rek maa ngi ci biir. depuis nga commencé musique ci wàllu musique moderne. ban moo nekk sa premier titre bi. bon sama premier titre mooy euh, mooy bu may ne euh, euh, kii Ila Bomoli mooy sama premier titre mooy kabo bi waaw boobu moom laa njëkk a woy. mun nañu ko ñamal tuuti wax wax bu nga defoon. Iyo we papa chéri jila ba mori di hukumate jokote chéri iyo we papa sheri njilaba mori di hukumate jokote sheri inji jokote mudi uyo akila jokota madange som tate dilangena sungute aile di bamori dani beno mulompu di farela kula more dinje inji dene tebe mai di panye ite ile ringule maseri da betenom inga banyila beni kuno li ma déggee ne chéri def la dax def la sànni <laughs> waaw waaw loolu am na loolu am na dama xam ne euh, loolu dafa bari fii euh, ci dëkk gi euh, ci réew mi moo tax ma woyu ko parce que di nga gis koo xamante ne muy ci wàllu mu góor jabar dina bàyyi jëkkër mu dem mu bàyyi ko ak doomam mi dina gis koo xamante ne jëkkër bàyyi jabar mu bàyyi ko ak ay doomam moo dem looloo tax ma woy woy woy bi. woy bi kay neex na ma ne est-ce nga mus nga jëndee cassette wala yaa ngi waaj a jëndee cassette wala est-ce mus nga def clip. waaw ah, moom def naa ko clip moom def naa ko waaye ah, cassette ah, defuma ko clip laa def may bu këba bu may wax nii mm-hmm. waaw boobu laa def. clip dafa cher noo ko duggee kan moo la ci jàppale. Ah, dinaa ne ah, boo ma jàppalee waaye jàppale nañu ma lu bari parce que ah, nit même bu dul xaalis dañ may jàppale ci ay wax dañ may jàppale tamit si ay conseil si ay jaar-jaar tamit en même temps bon borom yéene yi am nañu teg nañ si seen loxo parce que boo gisee ma ne teg nañ seen loxo bon dañ ma ne jaaral nii jaaral nii jaaral nii boo jaaree nii dina baax. non non sama yaay joxuma ko xam naa peut-être ni ñuy ne donn rek moo tax dama da dama ko euh, don la waaw man euh, du ma sàcc sàccuma ci benn woy jàmbur man euh, man damay jóg di fent damay fent di woy bu lu muy ñëwee rek noonu laa koy woyee non non regretté ma waaw regretté wu ma parce que gis naa musique neex na trop dégg la yoon bi sori na lool yoon bi bëri na jam-jam waaye regretté wu ma parce que bu may woy nii dafa may jox leneen mm-hmm. waaw daf damay bég waaw daf damay fàtte lu bari naa tey musique pour nga dundee ko il faut que ngay créer ay concert wala sa mbokk artistes yi invité ay concert yow est-ce que a créer concert wala est que da participer si ay concert yu bëre yu bëre xam ne sa mbokk artistes yi ñoo euh, am ñeneen sama yeneen morom yoo xamante ne dañuy ñëw ñu ne ma am nañu concert invité naa la ma dem parce que tey yow la suba sa moroom la te bu may defar samay concert benn yoon la mus a def concert mooy fële Cabro C Amanca foofu laa def sama. sama premier concert waaw boobu ba tey defatuma sama concert boobu boo xamante ne boobu sentir naa ne boobu sama concert la. parce man sama cosaan ah, Varela laa cosaan mooy dëkk bu ñu ne Varela waaye c'est ni ma ah, yàggee dakaar xam nga ma nekk foofu maggee fa xam nga waa Molomp moo ma yar Dakar moo tax may may woy ay woyu Molomp. Dakar est-ce def nga jot nga te def ay musique. non non non defuma fa ay musique. xanaa di woyantu noonu rek buma ma man di woyantu. concert tamit. non non man la dugg tamit ci groupe orchestre. non non man fi la doga a doga doog a def euh, euh, euh, musique. musique inspiré. bon na son. moy banal banal ah moy bi. Ilaba ma di ma génne benn boo xamante ne dañuy ne duwaayu mboom ma génne benn don dongo daara. nga mu ban nga mujjee génne. mooy dongo daara moom laa mujjee génne. boobu dafa mel ni olof la te wër ñu dëgg. xawma doomo fu mu ne dem na jàngi daara dem na jàngi daara di lekkalu ne di tëdd fu nooy bàyyi sa doom ci àll ba di lekkalu ne di tëdd fu nooy bàyyi sa doom ci àll ba i haasuta ñoolo bonammi na jaa jàngi daara i haasuta ñoolo bonammi na jaa jàngi daara nawre so no hintoɗelal no katañoli dara nawre so no hintoɗelal no katañoli dara bo woy bi boo gisee ma woy ko dafa am benn taalibe boo xamante ne dafa niroo ak sama doom Texas léegi saa yu doon ñëw fii moom dafa day ñëw xam nga bu dee yeneen liggéey yu ndaw ndaw def mu toog xool ma waaw mu niroo sama doom lool moo taxoon ma woy woy bi parce que bu doon dem dee mel ni sama doom mooy dem noonu. projet lan nga fas yéene def kanam. <laughs> lan laa fas yéene euh, ci kanam. waaw da nga continuer musique ngay uti ndimbal wala da nga bëgg a créer sa orchestre mu taxaw complètement man daal xeebu ma dara bu ñëw rek bëgg naa mooy ci wàllu euh, orchestre képp ku ci mën a jàpp rek mu jàpp ci. waaw te euh, musique tamit bëgg naa tamit mu avancer tamit waaw bu ma amee tamit ndimbal tamit bëgg naa tamit. ah xanaa di leen gërëm rek autorité yi rek aw ma seen fay parce que fu ne nii instant yi moom ah ñu dégg man li may wax maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen ne lépp lu ñu yootu yàlla na leen ko yàlla may bu ko defee ñu mën a am kantal pour ñu mën a ñëw jàppale ñun mi artiste Casamance yi parce que ñu soutien la ñu soxla. ba assurer concert. waaw concert moom bo bo bu nekkee euh, concert boo xamante ne euh, bu ma ko jaral moom dinaa dem amul benn problème mm-hmm. waaw parce que concert moom mun na laa indi lu ne. léegi nag euh, sa kaddu ñi nga xam ne ngi lay xanaa di leen gërëm yow mi nga xamante ne yow mi ñëw di doon ku rafet ànd ak sa Daouda Samb mi hana kay awma sen fay parce que mënon ngeen tok kay tey sen kër ngeen ne duma ma ñëw lan laay doyee Sister hortan Diedhiou way def ngeen effort ngeen ñëw ci man pour ko defee ngeen mën ma ah, laaj lan mo xew ci sama musique bi hana kay rafetul rek ñi nga xamante ni ñi wara déggulu man limay wax di leen bu baaxa baaxa baax di leen ne lepp loy lu ñu yotu yalla ne leen ko yalla may waaw ñu dugg ci nawet bi dugg ak jamm genn ak jamm lépp loo xamante ne luy jafe-jafe luy ñëw si réew mi yàlla na yàlla na dem. waaw maa ngi gërëm Karou Tamba TV mhm. waaw euh, gërëm naa leen lool ma rafetulu seen taxawaay bu baax a baax si rajo bi donc euh, maa ngi leen di ne yàlla ngeen euh, am li ngeen bëgg foofu yàlla na leen ko yàlla may. jërëjëf Hortense Diédhiou kon lii moo nekkoon donc doxantu bu ñu def fii ci kër Hortense Diédhiou di leen jox rendez-vous. prochainement incha allah rabu ci beneen artiste jaajëf. down.